dugal gi ñuy dugal njàngale mi soxal wàllum sëy ci élèves yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci primaire maanaam ñi gën a féete tànk mu ngi wëy di bokk ci li nga xam ni moom la ñuy gën a waxtaanee ci actualité bi loolu nag mu ngi tàmbalee ci ba ñu amalee atelier de partage bi nga xam ni moo dajale woon ñiy dugal seen loxo ci njàng mi foofee ca Saly ca diwaanu Mbour ñaar fukki fan ak benn ñaar fukki fan ak ñaar ak ñaar fukki ñett ci weeru décembre bi ñu génn séminaire boobu nag ko dëppee woon éducation sexuelle et reproductive ba ñu jógee ci séminaire boobu nag taxawaay ñu ngi gën a fës kàddug ONG Jamra mooy kàddu gi ñu njëkk a dégg muy ŋàññi lu ni mel ci ab communiqué bu ñu siiwal bureau exécutif bu ONG Jamra ak observatoire d'alerte et de veille sur les valeurs religieuses Mbagne Gàcce ñu ngi gërëm G7 mi nga xamante ni si bàyyi xelam ci li nga xam ni moom la réew mi bëgg tax na ba ñu musal suñu école ci li nga xamante ni si dañ koy dugal mu nekk loo xam ni dëppoowul ak mbaax ak aada yi nga xam ni moom lañ xamee woon réewu Sénégal t it loolu tax ba li nga xamante si goo xam ni ñi fi nekkoon ci wàllum diine ak ci wàllum cosaan loolu yépp dana mujj naax saay bu loolu weesoo ñaari bureau exécutif yi ñu ngi naqarlu jéego yi nga xam ni ay lobi ak ñoo xam ni dañoo yor seen koppar bëgg nañ fexe ba daganal li nga xam ni moom mooy ak ngóor jigéen jaarale ko ci concept bi ñuy tuddee genre ci école yi beneen kuréel guy yëng ci wàllu diine itamit wane ak njàqareem kuréel googu mooy rassemblement islamique du Sénégal al wahda moom mu ngi naqarlu bu baax a baax programme d'appui au renouveau des curricula liggéey bi muy liggéey di ko jaarale ci dugal njàngale moo xamante ni si bi dana andi ay soppet yoo xam ni dëppoowul ak li nga xam ni moom mooy bëgg-bëggu askan wi rawatina ci wàllum sëy ndaxte soppet yooyu ñu namm andi ci njàng mi ak njàngale mi rassemblement islamique du Sénégal dafa jàpp rek li ko tax a jóg mooy gën a andi ak mbon ci li nga xamante ni si moom mooy njàng mi jaarale ko ci ay programme yoo xamante ni si dëppoowul ak sunuy mbaax ak sunuy aada ak it jàpp na ni programme yooyu dëppoowul ak li nga xam ni moom mooy bëgg-bëgg askan wi ndax laataa ñu koy tëgg duñ leen ci dugal ci communiqué bi nga xam ni Jamra siwal na ko ONG bi mu ngi rafetlu jóg gi nga xam ni ñëpp jóg nañ ko ngir wax déet ki nga xam ni moom mooy UNESCO nga xam ni bëgg na dugal ci njàng mi loo xamante ni si dëppoowul ak aada ak mbaax yi nga xam ni moom la ñu suñu diine jàngal mu ngi rafetlu taxawaayu syndicaliste yi yu demee ni ka CUSEMS CELS authentique SENALS FC UDEN ak syndicat bi ëmb inspecteurs yi ak SEAMS bokk nañ ci kuréel yi nga xam ni ñoom yëkkati nañ seen kàddu ngir naqarlu li ne mel ak it mën a wax ay ndaw waa UNESCO ni ñoom dëggaluñ nga xam ni moo réew mi ngir mu dëggal taxawaayu réewum Sénégal moom mi nga xam ni dafa mos a bañ li nga xam ni moo di ak ngóor jigéen loolu yi nag ay organisation ak ay groupe de pression ñu ngi seet nuñ koy dugalee ci njàng mi di ko jaarale ci lu ñuy duppee orientation sexuelle sàmm wonteeg ak ñi nga xam ni ñoo gën a néew waaye nag ci yooyu jamono ñi nga xam ni ñoom la askan wi tànn ngir ñu jiite leen jaarale ko ci ministre bi nga xam ni moo yor wàllum njàng mi weddi na réforme yi nga xam ni dañ koy def jaarale ko ci jàngale sëy féete ndaw laataa muy dëggal ni ci atum 2018 ba léegi département ministériel bi nga xam ni moom la jiite jamono ji am na ay programme yoo xam ni mu ngi koy doxal jaarale ko ci matière yi di SVT économie familiale jaarale ko ci programme bi ñuy duppee santé de la reproduction